génn dem julli ji iid ndax nit ñi buñ la gisee danañ la sopp malaayika yi danañ la sopp te képp koo xam ne mu ngi lay lor ci làmmiñ rekk mu ne kàccoor la te mu ne ko yow dara mënu laa baare képp ku la bëgg a baare man mii may dog tànkam wala ma dog loxoom bi wala ma dog làmmiñam bi mu ne suuf si man maa ko moom fu la neex nag ngay dem ci suuf si te kenn du la mën a baare te ku nanguwut a topp ci sa ginnaaw dina am gàcce mu ne lii de la ko Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax mu ne ko yàlla sopp na la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na la malaayika yi sopp nañu la waliyu yi sopp nañu la kilifa yi sopp nañu la te mu ne ko jàpp naa la te duma la mës bàyyi mu ne ko itam sa juddu ci kaw suuf si sama ñaan la maa ko ñaanoon ñaan googu nangu moo waral nga wàcc ci kaw suuf si mu ne lépp lum ko mës a wax ne teg na ci bëtam looloo tax ne mu sant yàlla wax alhamdulillahi rabbil alamin